juróom-ñaari weer euh, nekk ci condition yu méttee métti donc tey ji bu toogee bay wax sa xamaana suñu mbiru suñu boroom la rek mais di la wax jàppal rek yàlla baax na ci noonu dañuy euh, jox euh, Ababacar Mboup bu ànd sàmm jikko yi mu daal di dikk rek moom i tamit sànni kàddu honorable la waxoon salaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen euh, ziyaara di nuyu vraiment ñi fi teew ñëpp di leen nuyu aussi yéen waa presse bi di nuyu sénégalais yi yëpp itam euh, sama kàddu li ci njëkk nag mooy vraiment rafetlu initiative bi muy lu am solo euh, keroog bi ñu defee benn jotaay ci wal Walfajri bi ñu génnee la ma Salma interpellé woon ni ma am na ay xalaat yu ñu am bii ci guddi la ma man Biram Soog di woo xamal ma ni ma ay chroniqueur ak i chroniqueuse am ñu ma tudd te ñi ma tudd yi tamit vraiment sama xel dal ci ndax am na ñu ma ci xam mu tudd ma sëñ Saliou Guèye moom ci boppam ma xam ko yàgg ko topp ak ñeneen loolu dalal sama xel ma ni ko loolu man je mangage a 1000 pour cent ci initiative bu mel noonu kon tey suñu ñëwee fii euh, sama teewaay ti tey ñaari yëf daf koy firndeel muy ñun naka jekk ci combat wu principe rek lañuy dox principe donc moom moo ñu ñor itam benn bi mooy le respect de la constitution sénégalaise réew mi ñu nekk Sénégal la tudd sénégalais yi ñoo ko moom ñu tënk benn charte boo xam ne nee nañu moom moo ñu lëkkale am sañ-sañ yoo xam ne ñun askan wi dañu ko moom joxuñu ko kenn askan wi moo ko moom kan moo ñuy jiite ci ban diir lay doon loolu askan wi dafa ni bokkul ci li may joxe bokkul ci li ma dénkaane ñu am kuñu fal mu dem ba ak palam war a jeex mënuñu leen naxee mbaay léegi jël naa ci seen sañ-sañ waxuma sax xañ naa leen yéen li ngeen moom waaye nag nday charte réew mi bi ci boppam lay xotti sànni fële ci àll ba moo tax fan yi yëpp ku may dégg dama naan man kenn dootul dégg sama gémmiñ ma ni ko président du am parce que bi muy waat dafa waxoon ni maa ngi waat ne danaa respecter constitution bi te danaa ko respecter lu kon su dellusee ci waatam googu def par jur dellu ci ginnaaw amul lu ñu liyeeti en tout cas naa man ak moom Macky Sall laa koy wax waaye doontul man président ci man du ma xaar sax ba la deux man alors loolu dafay lu am solo loo xam ni mu xam ko te yaakaar naa ni il s'isole de plus en plus même ñi àndoon ak moom sax da nga gis ni nit ñaa ngi génn di wax ni ko ni ko lii ëpp na fan la teg ni day jalgati constitution bi ci adresse am bi mu wax euh, le 3. mi ngi ciy junj naan am na candidat bu jàll boo xam ni loolu dafa violé article 28 bu constitution bi moom ñaata disposition constitution bi la violé article bi article 31 bi article 92 bi article 103 bi maanaam boo koy lim doo fi jóg <coughs> te moom mooy ki jiitu koo xam ni moom lañ war a topp ci gannaawam di xool ni muy doxee kon su jalgatee yoon bis ni ki tey man damay wax ni lii su jàllee man dootuma def yoon sama bakkan des yeeg leneen laa ci yemale mais dootuma def lu ma neex lay def ci réew mi mais loolu ce sera une jungle te kenn warul nangu loolu kenn warul ko accepter kon moom dafa war a respecter la constitution sénégalaise yemul ci loolu cër bi askan wi moom la souveraineté du peuple daf ko war a respecter aussi parce que xëyul xëy fal boppam kon ginnaaw ñoo ko jox loolu cër boobu na xam ni kon ñoo ko defal teraanga jooju mu bàyyi ñu xel te delloo ko léegi nag lii lu am am solo la maa ngi ciy woo senegale yépp ñu ñëw jàpp ci ndax combat bi bu kenn jàpp ni combat wu même bu fekkente ni ay chroniqueurs ak i chroniqueuses ñoom ñoo ko initié du seen combat lii combat wu askan wi la lii bu kenn jàpp ni combat wu benn parti politique la. ndax man bu doon combat wu parti politique la du ngeen ma fi gis mais combat wu askan wi la askanu Sénégal askanu Sénégal lañ fekk mu toog ñu ni fuuf aw ŋaangam ŋaamam loolu moom ñu dégg wala dañ ko xam mbéjum kanam nag borom moo koy fajal boppam askan wi lañu tooñ kon askan wi moo war a jóg dans son entièreté kenn warul des ñëpp a war a jóg initiative yi nag bari na ñun ñoo ngi jéem a fexe fédéré lépp parce que askan yu wenn askan la Macky mii il faut faudrait que ñu wan ko ni ko moomul nit ñi jëndul nit ñi fan la teg luy ndey nekk ba ak quelques heures du démarrage des euh, de la campagne électorale mu naan léegi nee nañu yaakaar nañu foog nañu mel na ni am nañu mën naa nekk ni ay njort nañu kon léegi daq naa en fait la euh, euh, abrogé naa euh, le décret sortant convocation du corps électoral fan la teg loolu la crise ne se passe que dans sa tête crise bi muy wax ci boppam képp la nekk mais fii kenn gisu fu crise yéen assemblée nationale andi lu leen fa ngeen teg euh, une commission d'enquête parlementaire mhm. yéen a ngi liggéey mhm. d'accord nañ ci d'accordul mais déjà liggéey ngeen mhm. déjà c'est tombé à l'eau bërki démb indi nañ fa benn proposition de loi la loi nee nañ elle est passée cette loi scélérate là parce que sañ bi kenn joxu leen loolu l' assemblée nationale. kon ki assemblée ngi liggéey même buy jalgati sax mi ngi liggéey alors kon kooku nañ ko teg nii le conseil constitutionnel mi ngi liggéey non superviseur li ñu ko supervisé loo jël na benn dogalam wax na ni fukki kan ñaar fukki candidats yi ñoom ñooy bokk. nga d'accord ci nga bañ ci d'accord nga nangu ak nga ñàkk nangu la constitution sénégalaise notamment en son article 92 moo wax ni conseil constitutionnel dogal bu mu jël kenn mënu ci def recours kenn du ci delsi yamul ci loolu dafay applicable ci tout le monde pouvoir public yi maanaam ci président ak ñëpp lay applicable kon où se trouve le problème su fekkente ni gis nañ ni am na benn candidat wala ay candidats yoo xam ni am nañ double nationalité mais la question est réglée par la sax man en fait le code l'article 34 de la constitution notamment son alinéa 1 dafa wax ni bu ñu génnee liste définitive bi ba pare ak premier tour bi su fekkente ni am na candidat boo xam ni dafa am empêchement wala mu retiré wu conseil constitutionnel dafay constater loolu la wax publier waat beneen list c'est tout mu remplacer ko kon na ñi ko jàpp gis ni am na moom ñaari nationalité nañu informer la conseil constitutionnel mu sukkandiku ci kayit boobu constater ko retirer ko tout simplement ci liste c'est prévu par la constitution du Sénégal kon ana problème bi fi am le problème na se passe que dans la tête de Macky Sall fii Sénégal problème amu fi moom moo fi indi problème léegi nag man dama am sew-sew boo xam ni dama ko gis te dama bëgg ñu bàyyi ko xel li ñu ci war a taxaw danañ ko ci taxaw du moom moo ñu imposer sa volonté mais la volonté du peuple sera respectée mais dafa am sew-sew boo xam ni dama ko gis di ci invité ñëpp aussi ñu bàyyi ko xel man dafa mel ni Macky Sall dafa jàpp ni ay gone la seqal Sénégal jàpp na ni ay nit ñu immature la seqal Sénégal waaye fekk na ni fu mu xelam yegg rek xelum nit ñi ro weesu na ko qu'est-ce que Macky Sall a fait il a juste abrogé le décret convoquant le corps électoral c'est quoi le corps corps électoral corps électoral mooy nit ñiy wote ñooñu la wax ni ngénte wala ceet li waroon a am yëgatul yëgalul leen ko toog leen seen kër je sais pas ndax nit ñi def nañ euh, euh, euh, kii remarque bi mais annulé wul élection yi les élections ne sont pas annulées décret bi mu abrogé c' est le décret 22 83 bu 29 novembre 2023 boobu décret la abrogé mais la décret bi fixe la date de l'élection au Sénégal kenn abrogé wu ko c'est le décret 2022 2023 plutôt euh, 339 bu 16 février 2023 moo fixé la dat de l'élection cette ce décret est toujours en vigueur kon ni ma ko mën a misaale mooy soxna si ceet bi moom dana sëy si ceet gi moom maintenir nañ ko waaye ñi ñu ko yëgaloon bu leen ñëw lan la jubloo def Macky ce combat là dañ koy continuer de nee nañ ko da ngay respecté ko kii bi lu mu laaj danañ ko def mais nañu bàyyi sew-sew bi mu bëgg dafa bëgg a piéger tout le monde parce que il ne se fixe pas de limite Macky sal loolu xaw ma ku muy jaaxal mais man jaaxaluma Macky ne se fixe pas de limite Macky amul lu mu rus amul lu muy jom il ne sa fixe pas de limite su fekkente ni élection yi c'est maintenu toujours le 25 c'est toujours maintenu le décret bi ko fixé kenn abrogé wu ngi toujours en vigueur c'est le décret 2023 339 bu 16 février 2023 moo fixe la date nit bis bi ñuy voté Sénégal 25 février 2023 décret boobu mi ngi dox ba tey d'ailleurs man depuis le 3 bi mu defee kii laa tàmbali di seet décret bi démb laa koy soog a jot mi ngi nii ci journal officiel décret bi moo fixé datu élection yi te décret bi mi ngi mi ngi en vigueur ba tey kon gis ngeen sew sew bi léegi lan la jublu moom li mu jublu c'est très simple xam na ni il a perdu le système tremble xam na ni ils ont perdu xam na ni son candidat a battu à plate couture léegi qu'est-ce qu'il reste de faire mooy li mu desee kus néew mu wéy ci njuuj njaaj yam daan def mooy nit ñëpp jàpp nañu élection yi du am d'abord gars yi campagne tuñu quasiment ñoo ngi wax léegi dégg naa léegi ñu ne nañu ay vendredi non campagne c'est tous les jours léegi soo campagne ñun ñëpp xam nañ ni Sénégal li ëpp ci Sénégal yi nekkuñu ci parti politique yi toujours pratiquement il y moins de 4 millions de personnes qui votent sur un fichier de plus de 7 millions li ëpp ci sénégalais yi voté wuñu alors nga am campagne war a dem ci ñoom déjà bàyyi nga loolu muy benn perte te bu leen fàtte ni ñi nga waroon a dem convaincre leen ñoo ne moom duñu voteel majorité bi beneen bi ci des jeunes yi engouement bi amoon ci dem jëli seen i carte d'identité defatuñ ko ñoom ñëpp la seen yaram yu summeeku te ñoom ñi jëliwul seen carte d'identité duñ ko voteel opposition bi la voteel mu xañ leen ko ci décision bii mu def pendant ce temps bu kenn natable ni ñoom ñëpp jot nañ seen i carte ñi leen war a voteel ñoom hmm. nañ dellu ci Aly Ngouille la ma waxoon rek maay organisé waaye danaa fexe ba ñi ngay ñi may voteel ñëpp danañ jot seen carte d'identité ñoom ñëpp jot nañ seen carte d'identité kon ñi ko jotul mooy ñi war a ñi leen fi war a jëlee ñooñu bu ñu jëlul seen i carte nan lañ koy voté yemul ci loolu dispositif bi nga war a en fait le fichier électoral d' abord yi lijjanti wuñ ko saxati fi mu ne nii te yoon moo la may nga réclamer ko jël ko gars yi duñu jot ci fichier électoral bi. beneen élément bi nga xam ne nekkaan na ci mooy lan mooy ni effectivement la carte nationale électorale dispositif bi nga xam ne moo nekk ci biir surtout biir réew mi rek bureau yi ak lieu de vote yi mais wàccaay wa nga ca war a def ci ku la fay teewal superviser processus bi. formation ba mu laaj ñu defal leen ko ak tàggat leen mais dootoo ko def yaa ngi ci beneen combat fekk na def la divertir moom la ñuy wax euh, PRS PRS problème réaction solution man kat bëgg na maa jël téléphone waa ji te xam naa ni waa ji mi ngi nii toog di ma xool sol lu weer li may def mooy créer problème ba détourner son regard pour mën a jël téléphone bi mooy tu crées un problème par rapport à la réaction bi nga xam ne si dana am tu leur offres une solution c'est la stratégie que déroule en tout cas Macky actuellement te distribuer na les rôles rôles yi kenn ku ci nekk mi ngi ci ce n'est pas le lieu fii ñu koy wax mais distribuer na ay rôles gars yi ñoo ngi ciy joué mais tey jii moom na xam ni gone yi màgg nañu te askan wi yow nañu san ne passera pas du jàll alors li mu bëgg mooy bu ñu demee ba coow yi jóg noo day respecter constitution bi ba à une semaine mu ne waa d'accord kon léegi j'abdique donc delluwaat naa euh, euh, kii bële le corps électoral mën ngeen ñëw voter si alors amatoo le temps tu es perdu premier tour la candidat bi jàll c'est ce que manigance Macky Sall gis nga loolu nañ ko bàyyi xel na nit ñi yenn parti politique yi candidats yi 20 yi bu leen amati yitte sax ci ñun manifestation yi ñuy def dem leen ngeen def seen campagne parce que yoon moo leen ko may jumtukaay yi ngeen war jël yépp jël leen ko ngeen wax ak askan wi préparer le jour J le cinq ngeen préparé wu xeex bi ci des askan wi danañ ko defal boppam man je pense que ni loolu nañu ko bàyyi xel gis nga Macky neewoon na bàyyi na njuuj njaaj waaye tey la gën a nekk ci ay njuuj njaaj te loolu waruñu ko may fii nit ñi nelawuñu alors ñu koy wax ni ko day woote dialogue fii gisuñu fi lu ñuy dialoguer d'ailleurs de quoi on va parler lan la ñuy wax amnistier kan la ñuy amnistier moom quest ki qu'il a li fi xew senegal ak bakkan yi fi loolu danañ ko lijjanti ku ci mën a d'accord ku ci d'accordul ñoo ci yem loolu danañ ko lijjanti Sénégal gi gis nga senegal Sénégal d'hier la woon woon ni na loolu dootu fi amati il faudrait que ñoom ñu xam loolu maa ngi gàttal di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa mhm. yi am na solo lool ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ndax xel la waxee te li mu wax amaana bu ñu ko bàyyee xel rek dinañ ci gis njëriñ di ko jaajëfal bu baax ba baax euh, xëy na ñu jox Mass Mboup